asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel fii ci jumaa ju mag ji nekk Touba ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit ànd ko ak commission bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu weer wi ci njiitul sëriñ Mouhamadou bu so mu ànd ko ak sëriñ Abdou Diop imaam yara kàddu gi waa ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afiya so Eh, ñi ngi waat fii ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent ci weer wi waaye ñu ànd ak sëriñ Bachirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khoudous mu nekk ca Daarul Moxti dox suñu diggante ak waa Tiwaawoon waaye ñoo ànd ko ak sëriñ Modou mbakki si mi nga xam ne moo jiite mbooleem représentant xalif général des mourides yi ne ci eh, Sénégal ànd ko ay tam commission bi nekk Dakar ci njiitul imaam Diène ak imam Ndiaye eh, tey jii nag la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ginnaaw bu ñu sëlmalee timis Eh, yéene nañ ci ne nañu séntu weer wi bi ñu noppee ñëwaat nañ ci buntu sow bi jàkkaar jàkkaarloog tali alaaji Babacar Kébé Ndiouga yàlla na suñu borom doole ay leeram eh, kaddu yi nga xam ne nag mooy doon kaddu yu ndigal yi bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh mun taxa waxtu wu ne mi ngi jóge ci Serigne bi ñëw directement ci sëñ Modou bu Boussa wàcc ci sëñ Abdou Diop imam mu war koo li bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ñuy séentu nag weeru safar wi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa wax ne na ko jullit yëpp maasee sant la boromam kon sëñ Abdou ñu bàyyi ko ak kàddu gi mu jottali ndigalul sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ko sëñ Fallou Galas la waxee rek noonu la demee maanaam weer wu ne sëñ bi danoon na yebal ci jumaa ji ngir nu yéene bi wax ne ñu séentu weer wi ci ñaar fukk fan ñeent yu ne waaw bu te ko ci xam lu wér nga ñëw yégle ko bu ko defee euh, buñ ko sé buñ ko buñ ko yéenee bu noppee dañuy toog ci soow di ñun ñëpp di séentu ak di jokkoo gox yi ngir dajale xibaar yi bin jokkoo nag ba waxtu bi nag mel na ne mel mel mel mbo daje nañu xibaar yu yu bari yu yu wane ne gis nañ ko ci biir yu baree baree bari bu ñu defee loolu nag lañ jokkoo kër sëñ ba yégal ko ko ba sëñ bi kon joxe na ndigal ne kon ci noonu ngeen ko gisee rek kooku moom it joxe na ndigal ci ñu war ne suba kon mooy benn fanu safar waaw ne ñëpp xam ne kon suba ci altine ji mooy benn fanu safar kon nag ñëpp ni ko xam kon euh, màggal gi alxemes lay doon kon waaw ni xam moom waaw màggal gi ñu xam ne alxemes lay doon ñaan ñaan bu fukki fan fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett ci ci weeru ci weeru sabar waaw dëppee bër bëggub alxames altine talaata àllarba altine talaata àllarba bu alxames ci lay jógewaat bu ci jógee bu juróom-ñetteeli fan ba mu alxames lay doon waaw mooy loolu kon bis bu alxames lay doon kon na ko ñëpp xam noo ngi ñaan nag sëñ bu yàgg fi lool te wér te li ñuy wut ci màggal gi lépp yàlla may na ko ci xew xeeti xéewal yi ni war a doxale yëpp nu am ko te am daje ci ngërëmal sëñ Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullahi élection weer wi waruñu ko yëkkati lu dul na ndigalul sëriñ bi moo jib ginnaaw sëriñ bi dafa tànn ab commission boo xamante ne bii ci jamonoy sëriñ Saliou la ko tànnoon fop ay ñu ko doy jiital leen ci muy sëriñ Modou bu Boussa imam ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ak kilifa yi ñu ko seqal kon ñu ngi sàkku képp koo xamante ne bii organe bi nga yor ci yoonu murit lay tënku bala ngaa waxati ne weer yi feeñ na wala feeñut nañ nekk ba jot ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha ndax ñi koy séentu mbooleem région yi ñi ñu ko fiy séentul buñ ñu waxee ne gis nañ ko it ñun amuñu droit wax na gis nañ weer wi mhm. dañuy delloowaat kàddu gi Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha na ko dëkk sàngam ak dëkk sàngam gis nañ ko bu nu sëñ bi nee nañ wax na feeñ na ñu wax na feeñ na bu nu sëñ bi nee bu leen ne feeñ ne dañ naan bu feeñut kon ñun amuñu droit joxe ndigalul weer wi feeñ ne ci Serigne Touba waxuñu ko kon nag ñi ngi sàkku ñëpp ñoo xamante ne bii ñi ngi ñuy bàyyi xel bala ñoo joxeeti ndigal nañ nekk ba Serigne Touba joxe ndigal ba noppi ñu joxe ndigal loolu ndax ndigal benn yoon lañ koy jëfandikoo te sëriñ bee mi ñuy jox ndigal laa tafalu shay'an bi xayri idni fal isnu sartun fi xabuli sani nuru na jekk nañ mu wóor la na jekk na da koo gën a wóor ñi nga sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum